ñu ngi lay ñu ngi lay fay. maa sant yàlla bu wér waa Wassare. ak euh, la puissance. la gannaaw démb dafa am événement boo xam ne si diggante bébé euh, bébé Bismi ak Siteu bu Ngor ñu bari woon fi coow daal di am polémique bu bëri loolu loolu tey bi ngeen yeewoo est-ce que am nañ information yoo xam ne ñoo si bees. waaw gannaaw bi ñu sant yàlla julli ci Seydina Mohamed maa ngi gërëm sama ñaari waajur di sant sama sëriñ ba Seydou Mamadou Mansour Sall xalifa sëriñ Abbas di ñaan yàlla yokk leeram xalifa bi nekk Cheikh Ahmad Tidiane euh, Sall di ñaan yàlla may ko fanu gudd yàlla may ko wér di nuyu bureau ménager Louga bi nga xam ne maay seen président di nuyu le président ménager Bourkhane Wade bi nga xam ne tey ji moom la yàlla dogal nekk ci bureau ménager di nuyu suñu papa Babou bi nga xam ne tey ji moom mooy euh, président d'honneur di nuyu Sénégal yëpp wax dëgg yàlla di wax ni daal ñi ngi ñaan yàlla làmb gën a jëm ci kanam gën a dox boo xoolee démb ne stade bi mel fi macha allah nga xam ne si rek làmb moo gagné te it ku ne xam ne waaw reporter tamit xale. reporter xale. <laughs> yan information moo jot a wàcc gannaaw ba démb lu fi xewoon. waaw li fi xew démb mooy bëri nañ ci jàmm ñibbi ci ci jàmm Siteu daan ci jàmm ñu koy féliciter di encourager aussi bebe bismi parce que làmb noonu la euh, wax naa ko toujours làmb ñaar moo am ba ñett bëre daan daanu match nul li am démb juumte la boo xam ni doomu aadama yàlla rek moo dul juum nit ku dul juum amul mat suñ borom rek moo ko def yow matoo man matuma te juum te fu ne lay jógee arbitre yi seen jëmi bopp sax ci seen biir xam nañ ni li am déemu njuumte moo am parce que boo xoolee tey surtout Papa Sow ak Siteu bi ko 2S wanee nga xool ko démb image yi boo ko seetaanee da ngay xam ne même action la ci biir la ñu jugee ci première fi la ko daane Bébé Bismi bi muy déclenché moom di cote dafa teggi rek booy bi dóor ko mboot daan ko parce que boo xoolee loolu bërekat pur moo koy def action sur action la def daan ko fi mu taxaw maanaam dafa mel fooy jéggi rek mu toog ci kawam moom bi mu jógee mi ngi jooy ku xool xam làmb xam ne moom day wax ne man daanu naa moom loolu la signalé sax moom ci kaw la ko affaire bi jógee arbitre yi jógee fa la ñëw rek ni ko da ngay waat mais lool aussi tamit maa ngi ciy waxtaan ak léegi le président Bira muy président boo xam nit ku baax la kuy déglu Sénégal yëpp la di déglu nit ñi te loolu moo tax ñu ko fi président Alioune Sarr nii la meloon. ñu koy ñaan yàlla moom it yàlla may ko fanu gudd yàlla may ko wér parce que tey bu lamb ak si président Alioune Sarr liggéey na ci liggéey bu rëy rëy ba lamb ak si tey paaka ak jaase ki yat ak bëre kenn fayu la kenn déggatu ko ci lamb fii loo xaalis kon li ñuy def mooy xale yi ñun ñëpp suñu njaboot lañ ba bis bi nii Siteu nekk sama jarbaat jarbaat su defoon loolu Siteu damay jóg ni Siteu daanu nga jëru ngay wax dara bul def leneen da dem maa ngi nii ànd ak sama mbër mi ngi ñëw léegi pour ma dugal recours fii moo ma daloon ci combat Jacob Balde ak Papa Boy Djiné bi Jacob daanee parce que dafa war ndomba cote arbitre di arrêté combat bi def envahissement wane ni géew bi ni ñi ñoo bari sécurité amatul ma ñëw fii dugal sama recours ñu jox Jacob victoire noonu ñu ma joxe woon Jacob ci victoire ci Jacob noonu laay dugalewaat recours fii ci kattanu yàlla ñu joxaat ma victoire parce que nag nit ki lim moom da ko koy jox parce que moom moo ko moom jël bu rëy la ko daan bëree bëri bu rëy daan jël bu rëy làmb nag noonu la buñ ko daanoon ni damay d'accord ni daan nañ ko parce que nag wax naa ko ñi ngi ñaanal Ramadan yàlla xare ko àjjana te it mën naay wax a yow fii génn léegi ñu la Pape Diagne génn àdduna nit ki lu muy wax ci wax waxi démbam na doon ay jëfi tayam yonent bi nee na képp kuy fen bokkoo ci sama xeet kon ñu dañuy ñaan yàlla rek tënku ci dëgg rek ba keroog suñu borom dañu fi jëlee yàlla na yeex mais mënul ñàkk doomu aadama moom li ne ci àdduna ci ne ci rek mooy dëggu mooy lépp bébé bis mi bu dee ba toogaat këram seetaan télévision bi day xam ne moom daan nañ ko na dem defarwaat lamba muy ci kanam si taat ne moom it yeneen ñu ci su ma déggee say wax ça veut dire joxuñu leen victoire. comme sans verdict la. moo tax nga war a di wax arbitre dañu envahissement envahissement mooy que ni làmb ji géew bi bari na ay nit mënatuñ jël benn décision di ko joxe parce que nit ñi bari nañ ci biir géew bi moo waral ñu ne envahissement envahissement nag bu jàllee mooy sans verdict sans verdict bi nag bu jàllee am na lu la yoon may yoon lim la may mooy nga dugal recours di laaj sa victoire ñu jox la ko nag loolu rek moo fi mën am ndax victoire moom mënul ñàkk parce que booy bi moo daan ki daan moom ndaamam rek la soxla moo tax ñu dugal ni vingt cinq mille ak lettre bi pour def réclamation laaj recours suñu suñu ndam. mais est-ce que CNG wax leen dara si wàllu maanaam démb ba leen wooy ne ne ñëw ngeen waat ngeen lànk ne ngeen bëriwaat est-ce que amul ay daan yoo xam ne fekk na leen non non lànk amu fa yéen yëpp yéen a ngi seetaan image bi nee na ñëw bëriwaat bari na ci ay promoteurs yu bari yu ñëwoon ndeysaan sollicité xale bi na ñëw waat na ñëw bëri yaa ngi ciy gis ñoom Assane Ndiaye ku lim da ngay juum promoteur yëpp màbb ci biir loolu moom mooy li nga xam si moom la yoon joxe yoon lim joxe mooy boo amul daloon na diggante Lagros ak ama neex Amaneex neex dafa ñëwaat bëriwaat Lagros daan ko mu dugal recours ñu jox ndam loolu yàgg naa am ci làmb maanaam boo demee di constater victoire loolu yow ndam loo téye la ba pare bal lu neex nga ñëw bëre daanaat muy ñaari ndam xam nga day gën a neex bu la daanee nga dugal recours mais li am démb ku ne xam na ne ak mbooloo mi ni meloon su fa la leen amaatoon mën na indi ay jéya te wax naa ko. toujours moo wax ko gars yi nee naa leen làmb ji ñun lañ ko defaral mu taaroo ni 32 milliards dafay ñaaw yenn di fi am parce que ñun ñoo bokk ndey ñoo bokk baay xale yi nga gis nii muy bari làmb yi ñun ñëpp suñu njaboot lañu dañoo bëgg rek ñoom ñëpp ñu tekki teral seen i waajur parce que lamb Sénégal moo ko moom à part nationale bi football tey jii ñu ñaan yàlla may ñu ndam mooy que lamb li mu dugal ci réew mi dara dugal ko ci réew mi benn naqar rek la am ci lamb mooy li état war a def ci lamb jàppale ko lamb jàppale ko lamb sponsor yëpp dem nañ te loolu bi président Abdoulaye Wade nekkee yaa ngi gis ni meloon mbër di fay ko 100 millions te bu sponsor yi parce billet deux cent mille deux cent mille nga jënd ci lu mat vingt six bloc loolu ay millions yu bëree bëri la kon defe mbër moom sonn na ci bisam jóge fi dagg billet dem Maroc préparé wu ji njëw am ndam kooku li rafet rek mooy nga jox ko ndamam mu gën a kontaan làmb gën a jëm ci kanam. kon euh, maanaam CNG tegu leen benn daan. non daan mënta am parce que xam nga daan mënta am avancement bi mu amee rek ci la yooyu yëpp mën a génn mooy que ni làmb ñoom dañu sans verdict la sans verdict bu amee daan incha allah waaw jërëjëf merci ok.